lan a tax ñuy doon tàcc suñu boppa loolu war nañ koo xalaat muy eh, waajur bi muy school bi muy student bi boole ci tamit faana nguur gi yore wàllum jànga ci eh, réew mi waaye buñ ñëwee ci Kabeke tàccu yi amoon na waaye daal wàññeeku woon na lool lana ko tax ba tey benn laajte bi ñëwaat na ci suma biir xel ana la na tax léegi fu mu nekk ni nekkaatuñ di tàccu mu niiroon ni tamit ñun mi fi daje mooy waajur ticca bi ak student bi su si sañoon sax boole ci fànna nguur gi amee wàllum jànga bi tamit ana lu tax euh, result bu mel ni ñu war koo am ci suma gis-gis tuuti xale bi am na si rôle bu mu play ndax oncle bi waxoon na ko fi ne maths dafa uh, uh, laaj practice foog nga nekk di jéem di jéem boo ci jéemee nga daanu jogal nga continuer yow waajur bi mi nekk ci gannaaw xale bi tamit su daanoo bul taxaw nga ciipu ko naan ko lu tax nga daanu dimbale ko mu jóg su fekkee ne gis na ne yow tamit yaa ngi def sa kéetal a kantaar pour mu mun a jóg dina dina jóg te dina mus a taxaw school bi tamit nañ leen bàyyi suñuy xel naan xale yi dañoo ñëw ak lii xelum ragal maths science ak yu ni mel xale bi des na yow bi ko amee soo ko motivété wan ko ne yow li nga ragal nii jarul nga ragal ko li nga lii ak lii ngay def nga nga di nga gis ne sa ragal boobu du amati te mun nga ko su ko defee mu gis ne am na si ëllëg boo ko joxee tamit ba mu munu ko dina dina jéem waaye soo ko bàyyee tamit moom ci ragal bu mu ñëwee nga jox ko loo xam ne munu ko te jéemu la ko ci dimbale ah xale bi dina gis ne daal fii moom dama sonal suma bopp rek leenaan ci tamit xaw ma nag mun ngeen maa correct because maa ngi gis number of text maths textbooks 684 ndax loolu pour school bi yëpp la ndax loolu pour ah lower basic bi rek la mënuma si am because su fekkee ne lii pour lower basic bi rek la o pour school bi eh, yëpp la kon boog materials léegi dugate eh, dugga na ci problème bi materials dugga na ci problème bi te xale bi du caagin ne teacher bi dégg la mun na maat dina taxaw ci blackboard bi dina wax xale bi am ko waaye xale bi tamit war naa mun a am texte eh, matériel boo xam ne su ñibbee suy study dina am loo xam ne dina ko lini loolu tamit euh, nekk na loo xam ne daf ma xaw a euh, jaaxal lool ba pare leneen la tamit lu ma bugg a wax ci yëfi science jamono amoon na maa ngi woon ci basics euh, maa ngi woon ci upper basic bi xaw ma léegi because nekkatuma fa waaye gis na ay fànn matériels yoo xam ne mu ngi dem ci school si am na yoo xam ne correct mii wut ak suñu syllabus bi loolu yëpp tamit war nañ cee bàyyi suñu xel du bépp matériel boo xam ne indi nañ ko ñu ne science la mbaa maths la ndax méngoo naag suñu aline syllabus bi loo xam ne foofu la ñoo jëlee question bu ñu euh, aline euh, jox xale bi ci nattum xam-xam bi lii tamit war nañ cee bàyyi suñu xel fekk ñu seet yan matériels ñoo nekk di dugga ci biir schools yi yan matériels la xale yi di jëfoo ngir mun a am lu ñu bugga du caagande léppa lu ñu fële ñu indi ko ñu jox ko xale bi sometimes answer si do correct even SES bu ñoo wax nii jamono have nañu problem, nañu coordination, ci suñ coordination ba ñoo nekk waayeek because then realize that there are a lot of SES uh, um, uh, uh, materials that are not relevant and you see kids will be given those answers there is no way like as an examiner to give the kid a mark for an answer that the question has not asked for so lii yëpp war nañ koo seetaat su fekkee ne bugg nañoo taacul suñu boppa beneen eh, jamono suñ fi teewoo di seet lan lañu SMC indel Jere jërëjëf nde lafta contribute la mina wolom dindiŋol la study koti bayira a fele dindiŋol niŋ ye samana janka textbookol le seye min ye a loŋ ko ye niŋ ka taa suo ke seye sol fana se mako ye duwolu ni be ji la i e ka assignmentol di ɲɛ la e, homework pour ni wol kana na ni ni wol kana na i e b'a yɛlɛ ko ke sindi pour ya story ke a be easy la sol fana bulle because sol ni alfalol link nyanta ñantataran temale misa wol control no ñaame oto wo kamala la mbe sol da na nyin ñin textbookol mi na kana akana ke komi ay dang janda mato barin se fere ke no ñaami ye karan suwo fanan kono ma wo fana landi pour isaje ko textbookol kana kebulu fenko doronte natal nataloti natal jiberawte na bota je min keta english ti ika wolsol dila min ya lon ko ni ni bita ni ni data so kono ika wolsol ke saj ike ne min sol saj ni nata murun na se reports di teacher sol because ka student oja aka, aka speak correct english aka speak but ni abuko dila pura ya read ini ka kuya bak wo mun ni problem wolti dindiŋol be lo woti mbel nka lafiya ridin ke ñaamin mbuka mbuka nka ni kuya soto je baake because reading is very important hani kañum mas min fo a bee suntar ridin ne la ni ma wolsol ko understand ite la mas no la exam wo ta pass no la woto mbir ro ke la pour textbook olu ticasol sem koy isekal kal sol dire ka tay ka saaj isaje ko sobiyeto dol fana be keno aba sooneyandi le bulo kono noole nte la office to scolarship fo mool dool ye kinan ka bona masakunda bulo kono ministry of education mopsi pour ka scholarship di ticaal la men lefta tala la university bari priority areas men fo nye wala ñinti ko ŋaa di mol la men ye lon ko ise mars niŋ science keno bari kan you imagine ñiŋ kaytol be laariŋ bulo kono le faa be naa karo sii la meni be kana nan kana o kai to ɲininka scs long irk history you know commerce economics and the like jama babi biye ni na tafa ni koy ko pour aller mas he ntete wo kenol te wolle bi dum molti men ya lon ko be jikila wolle le murna system o kono ina karandiro ke man sa kunda be le katoke ke kan bar ko nyin mol be ya faja nyaame aka kuma si dumale mbe dindiŋol le en collège la ni ye a commence duuma isa je santo be soneya la bari mbe tembo min to sayinte meni be santo wol mu moolu le ti meni ye a lon ko they are not maths bias diya are not science bias because wo scolarship fo mo la a metan bulle fo labaŋo la english mo meni ka